ñu di ay autorité yu bëree bëri jamono bi ñu toll nii nag ñu daal leen di ràññee lool ci dikku Sénégal ki nga xam ne rek moom moo di Jean Luc moom mi nga xam ne rek fa séenee na daal di am ñetti fan fii ci biir réew mi ci lu soxal nag aw waxtaan woo xam ne rek war na kaa daal di fa séenee amal ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa Pastef rawatina ki nga xam ne rek moom moo di président Ousmane Sonko eh, ci dikkam nag mën nañoo jàpp ne kat ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay leader yoo xam ne ràññee nañ leen lool ci xeex bi rawatina nag ñi nga xam ne rek dañoo fare woon ci parti bi di euh, fa depuis combat bi commencé ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn booba ba tey mu bokk ci nag ki nga xam ne rek moom moo di maître Ngagne Demba Touré moom maître Ngagne Demba Touré mi nga xam ne rek gannaaw nomination m mën nañoo jàpp que ni kat booba ba tey génnagul rek pour def yenn nat ay kàddu yoo xam ne euh, daal dina koy yëkkati niki tey rek ñu daal di koy nemmeeku seen ko rek ci fi nga xam ne rek moom moo di programme bi nga xam ne ñii amal nañu ko eh, ci dikku ki nga xam ne rek moom moo di jean lique moom mii nag fas yéene daal di def ay waxtaan ak ay développement yu bare bare bare rek ci parti bii di fa lan nag moo war a tukkee ci li nga xam ne rek moom moo di ndaje moomee nga xam ne ay leader yu bari ci wàllu politique rawatina nag parti bii di Pastef daal di nañ koy jot a amal niki tey lu ci manti am rek daal di nañ say nemmeeku teewaayu ñu bare bare bari di leen di jaajëfal ci topp gi safoo gi ak faale gi seen seen YouTube Partout TV